Dakar est-ce que mooy góor fii fan la nga ne. fii zam-zam la. waaw nga naan Dakar est-ce que ngi cool. xam nga lan moo ma jaaxal. damay ñëw Dakar. waaw si appayal daal di gis ndeysaan benn avion bu paan ndekete batterie bi moo bu rëy ba apprenti bu paaka 250 kilomètres carré lañ ko jàmm. waaye man maa ko sama téléphone ba ma feb bi rocci batterie bi balaasal ko avion bi avion bi naa ma jël batterie avion bi dugal sama biir téléphone. Baye Fall bee ngi nii toog dañoo màggali ci daaw Touba wàcc Mbàkke daje omb ak ndekete omb ak murid la omb ak murid la wala du murid omb ak lañ dajal station Elton ba te bu ngeen weddaloo laaj leen ko Baye Fall biy toog moo dem cant mos ñett mën a kafe daal di feebar ndeysaan ñëw ko hôpital fu jiit fikir kafe génn ñu ne ko ah Fall lii lan la mu ne rijaal topp cant yi rek. baramaas bi ñëw nag yëpp bi ak olof bi olof bi dafay dugg bi de commissaire. daje photo sëñ Fall bu mag comme nii rek nekkate commissaire Mouride la mu ne olof bi noo tudd olof bi na ko Serigne Bamba Xaadim Rasuul bu may ko 10 000 la ko paasal ñibbi yow moom kenn du la tëj pël bi ñëw caaji verte ji noo tudd mu ne ko xay man yoru Rasuul marché Colobane laa romb am ko sol ay verre mi di waxaale ku tëdd ñu taf bët yi baasi verre yi sama téléphone 100 pour cent batterie ñu taf 99 pour cent yi baal ma 1 pour cent yi maire bi daal moo ñëw ci jaaykaay diwlin bi ba mu ñëwee ndekete ndaw si njaayam diwlinam yëpp walaat la commencé ndaw si nag daal di natt ay walaatam tegee nii ndekete ni mu toogee nii ndeysaan sàgganu na naar ak si naqawaay jaayal neer wala saa ni mu yóotoo walaate affaire gën a feeñ mu ne ko yokkaateel wala saa ni mu a feeñ mu ne ko ne naar mbir mi lay xool mu ne ci tegg mot poset bi rek naar ne xooy wàññil walaat wàññi waateel walaat moom naar walaat la soxla dama romb buntu hôpital régional bu Kaolack dégg ñu naan liir bi judd na liir bi judd na ma daal di jàdd assisté ndekete bébé bi dafa judd te indaale àndaale bi docteur ba daal di posé di benn question ne ko ooy la cordon ombilical liir bi te ba ci kaw ne ko c'est la nouvelle génération sans fil lii ma leen di général Kéré moo ko fekkee. xool ba xam. en 1899. ah boobu juddoo ko kon jégalu ñu wàññi ko. ok ñuy màggal ñu Touba maag général ñu dugg oto dem ba Mbàkke gis benn avion 19 kilos bu yëpp 10 mille 99 nag daal di pan tombé ndeysaan général di dawal ay dàll patin daal koy teg benn tànk bi ba biir Touba te général man li ma gën a neex samay mbir bi général ko fekkee <laughs> daal koy def parce que benn pël tey moo sàcc quarante gétt nag daal ko dugal ci biir caay ji ndekete caay ji dafa am ay dëkk caay ji daal si biir am na puut ndox puut ngooñ ak puut ripaas da ngeen maa ma dem wala ma toog eh, même boo leen ko waxee mu toog naa maa naatu mu dem léegi nag ndeysaan nu amee puut ndox puut ripaas ak puut ngooñ armée de terre et dañoo dugg di seet ndeysaan nag yi ci biir gétt yi mu ne ko gis sama papa même terre dafa def armée de l'air et de mer et de terre moom même terre dafa def formation de mer 800 siècle dafay nuur di xeex ay kóoba ay baleine ay requin ay dauphin ay poyka sama papa dugg ne leen nag yaa ndox. peut-être ndox mu ngi dëkk ak euh, benn euh, dëkk bu naan si. waaw pour ndox dafa dend ak benn dëkk bu ñu naan taataan waal dëkk bi bëkk boobu noonu ñi fa nekk dañuy sekkat ña ko semmiñ bi borosoon ndeysaan li nga te ne moo di rato di gallax ne ko asi. jaaral ñu kon tey li ma fi fekk yëpp dëgg la bi ma ñëwee damaa kontaan ñu ni ma dañuy rendre hommage Pacotille ma def ay plastique xanaa maa dégg ay ah, waay tàccu leen loolu waay ndeysaan ah bi may ñëw rek dafa am lu ma neex ndax dañuy daw ba ci yàgg ñun ñu ànd groupe lañu waaye daw gi nii daw da doo jékki-jékki ñu ni ci hôpital bi nekk fii dafa am benn femme bu war a occupé ñu jël suñu oto jox ko ko moom femme bi ak ëmb ba ma nga naan nii ñu daal di jël femme bi teg ko ci oto bi jékki-jékki yaayu femme bi di ma jëlal booli sukku bee nga andil ma ko bi ku ëmb benn tëggkat moo ko bi xam nga lu mu doon bañ a dégg rek jékki-jékki fu mu dégg rek jékki-jékki rek day départ yàlla def la jéggi-jéggi la topp benn waaye daal di daaneel femme bi daaneel ñu daje euh, mu jaara ci ëmb looloo andi ñu jox ko sunu oto léegi nag bi ñu déparé femme baa yi noonu dem hôpital yaay ji moo ni ma jëlal booli supp bi nga yóbbu ko dama ay gaj booli supp bi e eh, damaa dugg ci biir hôpital teg sama tànk yaay ji ni ma ñëwal saal baa ngi nii damay teg sama tànk léegi liir bi moo ni faree daal di wat liir bu tooy xep yanu booli supp bi sas femme dindi ko ci wëttee ni ñëpp naan ñu. waaw lii jommali ñu waaw waaw liir bu ndaw bi. liir bi ñëw yenn boolu sup bi di naan te man lu ma gis dama koy wax man maa ni waa lii lan la liir bi tuddee ni mais danaa tooy. e eh, ndeysaan barki démb suñu koñ benn meer moo génn meer bee génnee suñu koñ dañu bëri nag ndekete xar-xaru tànki meer bi. ni mu jógee noonu xam nga ndeysaan goro yi yàlla na yàgg ci kër yi ndeysaan goro bi moo ko daan lalal dara bu coton waaye ci gàttal maire bi mu buddeekoo sept heures ci suba ndekete xar-xaru tànk yóbbaale na lal armoire coiffeuse écran plat euh, euh, euh, kon ñu dindi télé bi kon dindi naa télé bi et eh, barki démboo Njaay suñu koñ benn góor jigéen bu def quatre ans yoo xamante ni amul mille cinq moo jékki-jékki rek xàccu daal ni réew mi dafa metti ku fi bëgg a doon góor jigéen dangay sàcc bu ma kenn dàmm man ndekete moom kër gi mu war a dugg sàcc borom kër gi góor jigéen la xaaj ba nekk day lippaleem é eh, keroog laa jom mi e eh, góor jigéen bi dox ñaari paa daal ni salaamaaleykum ana borom kër gi borom kër gi daal daal di jekki jékki rek génne ko servitam daal di ko eh yow looy rap rap la kër yi réew yi salaam lan la mun ko xam nga lu ma lay bëgg a xamal damay sàcc mun ko ah damay sàcc <laughs> balak ma Samba Yaasin may ma ma ñëw neen xaj bi lay woo di babi babi yo xaj bi génn mënu ko cuppa e xoolal xaj bi ñëw ba ci waa ji ma ni da koy xam xaj bi ar ñaar tànk yi daal ni ko bamba bamba زدني يا موري من منسية إدني يا بلا كوما إيه إيه إيه بوم إيه بوم تج إيه بو إيه وي ما باي باي كوكو منيو كوكا لا waaw maa nekk fii ci ginnaaw kii di ma tëñax boo ma eh. tëñaxee man ma tëñaxee man ndox la daaga waayow bu ko tëñax waayow waayow ah bu ko tëñax waayow xale xale bi xoola dum la def balaa maa nuyoo damay wax li ma jot ak kii ba pare nee naa taxaw ci jogonaal bi ci bopp koñ waaw waaw génne sama sambaraay bi di tuur ndox waaw xale bi jékki-jékki di ma naan la gajo fa waaw naan ma tàggu gugu fa jaba kii bi tafa jaba ta ba gind papa Ganja Fall. <laughs> avant tout d'abord. oui maa ngi leen di nuyu ci espagnol. dégg ndax man xam nga nekkuma woon fii yëpp. nekkuma woon fii yëpp foo nekkoon. Euh, maa ngi woon Espagne. waay. benn dëkk bu ñu naan fël-fël. fël-fël. Euh, euh. Ah, fël-fël. yo soy yo soy un soy. sincero le doy la palma. ndeysaan loolu lool ban loolu ban la. espagnol. ah yoosoy tummeri baba ƴeyta kam eri mbiyaari hee lolu endola kana ah, eh, hamsadun soga yaaniri jannama karkade bolo bolo la ilaha illallah e eh. ah, eh, damalay nokde sagami demene guretu ripas damalay nokde wa i moy faqman e yo bayil jambour bowa yoto caga nga nag yow séréer waaw neena sànq bi may jël dafa am benn booy dañ ni ko ci gàttal koñ bi tey gudd dañ te ñoom seen famille papaam toju suuf bi day direeku mbaa du douze douze mètres la ñu ni leen tey jii daal ku sëy tuñ rëy rek dañ lay rey booy bi ci gàttal tuñ bi quatre-vingts bu yeewoo nii la koy sànni et eh, booy bee commencé dox rek gis bi ñu ni e borom tuñ yi la ñuy ramasse rek booy bi départ et eh, papa ji tuñ bi faj nañ ko lu tolloog six mois mënuñu ko fexe ba dajal tuñ bi paa bi buñ ko àndee ba ci studio bi ni ko danga naan pom pour tuñ bi aju ñu mun koo photo xam fi tuñ bi yam bu ñëwee ba ci studio bi ni paa bi aja waxal pom danaan banana bàyyi tuñ bi daal di wàcc. Eh, waaye booy bi jékki-jékki juru ko yow da yëgul ni tey ramas tuñ bi rek booy bi départ bi mu ba ci ji papa ji tuñ bi ba mu mu naan ko aj de booy baa ngi aj basam waaye papa ji la def gémmi gi ku la ko doy na daañu ma bind ko kóoloo ko wax. xoolal maa ngi tiit balay ree sax yow dëgg dëgg yaa mën a dugal nag maa ngi soo a xam ne da nga mën a dugal.